acte 3 décentralisation def na communauté rurale yi ñu doon ay commune yuy gën a am seen gëdd Touba dëkk bu tedd bi doon na ab commune kon ci doxalin wu yeesu bokk moomeel yi du te muy wéy ci charte bi nga xamante ni noonee la ko boroom dëkk bi tëralee ni Touba ci ndigal rekk lay wéy gannaaw élection locale yi weesu tey jile nag maire bi nga xamante ni moom la xalifa général kullu murit tànn ci boppu mairie bi sous-préfet di Serigne Mbacké Fall dalal na ko ci tuuru jiitu réew mi jox ko cërëm. Monsieur Abdoulaye Ka au nom du président la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je vous officiellement dans vos fonctions de maire du conseil municipal de Touba bi doonoon président communauté rurale bu Touba Mosquée moom la xalifa général kullu murid dénkaat cër bi fas yéene doon maire bu njëkk ci commune bi. Serigne Sidi Mbacke. keroog alxames. keroog alxames. la ko Cheikh Sidil Muxtaar woo. la ko Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke woo. wax ko ne ko. wax ko ni ko. mbirum dëkk bi. mbirum dëkk bi. ak commune bi. ak commune bi. nama la ko dénke woon. nama la ko dénke woon. ak nama la ca doyloo woon. ak nama la ca doyloo woon. nama la ca doyloo nama la ca doyloo woon. noonu laa la ci doyloowaat. noonu la la ci doyloowaat. kon nag. kon nag. yaay seet. yaay seet. ba xam. ba xam. koo fay teg. koo fay teg. bu la neexee. bu la neexee. nga wëyal. nga wëyal. ki fi newoon ki fi newoon. bu la neexee. bu la neexee. nga dindi ko teg fi keneen. nga dindi ko teg fi keneen. conseillers municipaux yi war a ànd ak maire ci liggéey bi toll nañu ci téeméer ku nekk nag fas yéene bokk ci ak commission. conseil municipal bi sans conseil la. Euh, ni ñu ko tëralee numéro un bi ci conseil municipal bi ñu ko tëralee un Abdoulaye Kalla feuille de présence bi ngi teew Khadim Mbacké. Mor Dir Naar Lo Alaaji Fàllilu Njaay Galas Mbàkke Abdourahman Fall Sëriñ Xaadim Mbàkke Mouhamadou Moustapha Mbàkke Cheikh Ahmed Bachir Gumbala Maam Massamba Diop Abdoulahat Seck kon ci turu président de la république ak sama qualité bi ma fi toogal président muy représentant état maa ngi déclaré ni téeméeri yi teg nañ leen bis tey comme conseil municipal yu commune bu Touba Mosquée maire bi ci boppam toftal nañu ko fukki adjoint ñoo xamante ni ay adjoint au maire nañuy doon sous-préfet Serigne Mbacké Fall dalal na leen ci seen cër. adjoint au maire yooyu il s'agit de Sidi Ahmed Mbacké euh, Massamba Diop Serigne Cheikh Thioro Mbacké Serigne Cheikh Marema Mbacké Moustapha Gadiaga Cheikh Abdou Mbacké Abdoura Abdou Khadre Kébé Moustapha Sow El Hadji Falilou ak Ndiame Ndiaye. li des ba des mooy maire ak conseillers municipaux ñi mu àndal ñu ànd jàmm soxla askan wi.